kàddu yu kàddu yu cant mooy li jiitu parce que comme ni nga ko waxee soo amee doom bu toll foofu nga xam ne mi ngi taxaw pour jëm assemblée am ci yéene ak ni mu waxee barongoñam tuuru nga xam ne kii li muy wax dëgg la donc santiment de fierté la sentiment euh, wu cant la ak it euh, di am yaakaar ne li muy xëcc incha allah yàlla dina ko ci jotale te bu fa àggee it lu baax lay doon ci réew mi tasaare la ko ñëpp xamee. Mhm. Pape wax ci moom yomb na jafe na xam nga wax ci sa doom du lu yomb euh, ndax booy wax ci sa doom yaa ngi wax ci sa bopp li ne ci yow moom nga def ci sa doom. sama euh, maamam ki nga xam ne moo ma jur te ma tudde ko ko muy Djibril Fall dafa doon quelqu'un boo xam ne ku falu caajaay mun nga jàpp ne moo taxaw ba nga falu donc lu mu nàmp la lu mu donn la Euh, du lu ñu bett ci moom it séentu woon nañ ne tôt ou tard foog mu dugg ci euh, ñu di ci am yaakaar bu baax mu di xale boo xam ne fa mu juddoo euh, li tubaab di wax les vertus cardinales da ngeen di jàpp ne li ñuy wax nit ku baax vertu cardinale yëpp macha allah suñ borom def na ko ci moom. ñuy rafet njort bu baax it ne li mu li nga xam ne moom la nàmp li nga xam ne moom la donn dina ci taxaw taxawaay boo xam ne incha allah njëriñ lay doon ci réew mi. jërëjëf ngay wax euh, journaliste yi ay journaliste à chaque fois. dañuy ñëw dugg si politique mais si ginnaaw si dañuy changé dañuy changé wax changé doxalin. waaw loolu du jeex maanaam foo dem du journaliste yi rek maanaam li ñuy wax brebis galeuse fu nekk la am te foo demit corporation boo jël dafa am ñoo xam ne ñu ngi jubal am ñoo xam ne dañuy def safar waaye nun de li nu xam ci moom ak li nga xam ne fa la juddoog li mu yaroo ak valeur yi nekk ci moom. nu ngi am yaakaar ne incha allah li muy wax nii te muy dëgg ci moom ba rongoñam tuur ci loolu yoon woowu du ko wàcc incha allah du ko wàcc euh, ngir lu bari parce que li mu gëm euh, dafa di lu am solo te li jafe fi ne mooy gëm-gëm waaw ñu bari dañuy def ay pexe rek ni mu wax sànq ay njuuj njaaj ba am loo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku def ko métier moom doxalul noonu waaw bëgg Sénégal ak am yaakaar ne bu àggee fi mu bëgg dina soppi lu bari ci Sénégal moo tax muy yëngu ci lii te gëm nañ na du soppi incha allah. ban conseil bi moom saa su ne dañ ko koy jox maanaam na jàpp ne moomatul boppam famille moomatuñu ko maanaam réew mépp réew mépp ko moom. sénégalais yi nekk ci biir réew mi sénégalais yi nekk ci bitim réew mi ñëpp a ko moom. kon nag euh, doonatul un homme libre. boo xam ne bu la neexee dem tëdd nelaw bu la neexee def loo xam ne gënul donc faaw mu bàyyi xelam rek ne fu mu toll nit ñaa ngi teg seen bët ci moom di ko surveiller il n'a pas droit à te nag jàpp nañ ne ay conviction ak suñuy ñaan dina ko dimbali ba jàmm ak tawféex rek mooy am incha